jërë ngeen jëf mbokku internet yu UBZ TV ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar dellusiwaat nañu ak yéen amati mbégte ak kontaante jàkkaarloo ak yéen mbokk yi tey tey ñu indilaat leen koo xam ne yaakaar naa di ngeen ko namm ndax xaw ngeen koo gëj a gis macha allah nag tey ñu am mbégte am kontaante li waral loolu mbokk yi bi ñu fiy gëj di fi mujj ci moom ak tey wuute na ñuy ñaan yàlla gën a dolli jàmm gën a dolli tan ci moom. mbokk yi grand El Hadj Faye lan leen indi El fay bu sàmmina El fay bu sama xalaatu àdduna li mu woy macha allah bari na bi ñu fi mujj mu xawoon a jagadi yàlla dogal nag mu am tan ba sax euh, am na single bu mu def bu doy waar bu neex boo xam ne mbokk yi loolu moo ñu fi indi tey ñu bëgg cee waxtaan waaye ñu jox ko mu nuyoo ak yéen euh, ñu dugg ci biir waxtaan wi grand maa ngi waaw yàlla nangu ziar te bool ni yool bi euh, maa ngi lool. ànd ak mbégte bu rëy rëy ci déplacement bi ndax vraiment ah, gis naa seen taxawaay ah, ma di la sant yow mbay ak sa caméraman bi mm-hmm. ba ci ki nga xam ne moom moom moom moom moom kii bi site bi mm-hmm. waaw di nuyu Sénégal gépp ah, di leen déwénatil mm-hmm. di ñaan at ñu dëgmal dàqal ñu yu ñu wees yëpp yàlla dolli ñuy xéwal dolli fi xéwal di leen su fi jàmm te tam événement yi nga xam ne moom lañ dëggal muy di yàlla def si jàmm sotti si ndox mu sedd guy waaw. am na solo ah mbokk internet yi xam naa tem ñiy seetaan ne ma. kii sa papa la nga naan ko grand <laughs> waaye su neexee du ma ko wax sax grand hélas laa koy wax ndax moom sama dooy bàjjan la noonu la ñu demee ah. ah bi nu fii mujj macha allah yaram mi xawoon a jagadi mais yàlla alhamdulilah yàlla def na tam. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax ah, dolli ci la ma ko santoon xam nga ah, wér ak wér di ñoo ànd waaw kon bu yàlla defee. ba yàlla indi tolof tolof ngeen déplacé wu ñëw defal ma interview yàlla dimbali ma ba ma amaat tan ngeen ñëwaat fi eh, di defaate ak man interview bi du defal def lu leen sant di leen gërëm di leen waaw di ñaan ñu yàgg ko fekke te ànd ak wér waaw Euh, ñu gi jóge ci loolu euh, macha allah nga yónnee nga ma man vidéo bi yónnee nga ma single bi nga def son bu doy waar macha allah woy ci nag loo xam ne euh, lëmbe réew mi muy accident yi am ci réew mi mu nekk actualité boo xam ne société bi dañ koy dund boobu ba léegi ñu ngi koy jàmbat te gisuñu saafara yu bari mais nii nga def yow ak ñi mel ni yow di woy buñ ko defee xëy na nit ñi dinañ ci jàngat lan moo la inspirer loolu. waaw xam nga ndeysaan Euh, accident yi ni mu lëmbaajee réew mi kenn mën laa xam mu toll. ba tax na ñi ci loru dafa bari. bari na ay ay bari na ay. bari ay euh, ay ak ñoo xam ne ndeysaan ay baayoon lañu. ak ay euh, jirim. yoo xam ne ndeysaan seeni waajur accident yeneen lor. boo dee xool lu ci demee na ay màggal. màggal Touba wala su mel ne gàmmu Tiwaawoon wala waaw wala événement bu am léegi lu si bëri da ngay gis accident yi eh, bari lool te dara waralu ko lu dul seen sago ñu ci bëri ñii dañuy nekk ca neex naan ba mandi di dawal walla wala di maam ñu ànd ak jigéen di maam di wax ah la ñuy waxtaan ak moom di waaw di dawal hmm, ah waaw mbaa ñuy wuyu téléphone mm-hmm. mbaa waaw mbaa ñu si charge ah waaw waaw waa gëmmantu te noppalu woo mm-hmm. bëggoon naa cee yokk loolu sax waaye yàlla dafa dogal mm-hmm. euh, euh, kii bi si chargé euh, morto bi si chargé macha allah tem taxi yi ñoo bari tër yi waaw ndax dama demoon naa ba ne boo sonnee taxawal boo gëmmantoo nelawal dallu tuut soog a dem waaye loolu lépp xam naa ne xaju ci woon moo tax Eh, may yemale ko foofu waaw ndax itam eh, boo dee seetlu eh, bus nga xam ne dañuy dem Touba wala Touba moo xam fu nu mënta dem dañuy surchargé ba nga xam ne gars yi dañuy toog ci porte entrée yi mu doy waar lool yéeme lool lool lool te man ñu may ñu ñuy dajeel ñu war a ñu war cee mën a wax war cee mën a wax duñ ci wax dañ koy dañuy gaare oto bi ba mu taxaw ñu dugg xool oto bi xam ne lii jaaduwul mais dañ koy bàyyi noonu ah, ah ba tax na bu accident amee rek faaw mu metti looloo tax daal ma ne woon daal faaw ma woy ci accident yi. loolu daal ma waral mbiri yi. da ngaa xalaat ko woy ko wala danga am producteur bu la ci produire. waaw dama dama ko woy waaw ànd ceeg sama benn frère boo xam ne ndeysaan moom ci accident yi la loroo. waaw moom moo nekk ci clip bi noonu. nekk ci chariot bi. ah ñu di ko Ousmane Ndoye moom ak Bouba Dabo. Bouba Dabo aussi itali la ne woon yàlla dogal moom it def ci choc foofu eh, fi mu doon liggéey li ñuy wax dita fi mu doon liggéeyee daal ndog daal ko fa mu war am ci accident bu méttee métti waaw waaw ñoom ñaar ñëpp chariot la ñu yor yàlla dogal nag moom. mu toog daal xam ne daal li ñuy seetaan accident yi bari na te metti na waaw mu da daal di day wut ay moyam daal eh, na ma élage daal mos a ñu woy ci accident yi noonu daal la demee ba tax na ma woy ci accident yi waaw. single bi génn. waaw single bi génn waaw pare na waaye dama ci dama def bi noonu rek moo tax au lieu que ma di joxe lépp. dama ko euh, def sur waaw waaw ah. dagg dagg daggatee ko pour envoyer ko waaw pour que nit ñi am ci aperçu aperçu le temps muy génn waaw waaw macha allah ñu gis clip bi am na solo ak ni mu riise waaw alors ah, ci bëgg xam nga boo gisee tekk boo ne tekk rek tekk wandaw yoon liñ naan dakkamte gaawantu boo ci jureewu boo ci juree doom rëccu da da cay amu yoon ganaar man baa koy faral di wax ganaar gës na bala mu soxla mu baxu gannaawam waaw hmm. ganaar gës na bala mu soxla mu baxu gannaawam kon yëf yàkkamte jaru ko hmm. doomu aadama lii wërsëgam ci àdduna ala kulli xaal dina ci jot waaw ba tax na bëgg naa lépp loo xam ne génn naa ko rek adduna di ko dégg wala senegal wala fu waay mën a ne hmm. boo ko dégloo rek xam ne lii ma wax li ma woy Ah, jar na jar na ànd ak takk ak tey jël sa temps liggéey liggéey bu rafet boo xam ne bu génnee ku ko dégg ne macha allah. waaw man nag bëgg naa ay woy yoo xam ne nga defa ndax am na way yoo xam ne leer na ma ne bi nga koy way xale yi génération bi juddooguñu wala xàmmeeguñu yooyu doo ko wayaateewoon ñu déggaat ko ndax am na solo la nga ca wax am na solo na nga ci doon yee nit ñi dafa am solo lool lool. waaw mooy li rek loolu laa ci jubloon way ci loo xam ne eh, way loo xam ne bu génnee koo dégg xam ne lii am na solo luy yeete waaye comme na ma ko daan waxee rek fi mu nekk nii jikko yàqu na ba nga xam ne génération bi moom hmm. defe naa ne déglu déglu déglu waaye way génération bi nekk nii defe naa ne mbalax mi na tar rek waaw mari mbaay tar dégg nga maam ñu dégg nga ah ji loolu daal mooy seen moo leen gën a kiiteel daal hmm. ba tax na nag ah am na ñuy déglu waay. yooyu itam comme ni nga ko waxee mën naa ko reprendre. waaye lu ci ëpp am na ay waykat yoo xam ne. Mm-hmm. daanaka parole yi rek lañ parole yi sax la ñuy jël. Mm-hmm. dañuy dugg ci biir way yi. rocc ci parole yi. dugal ko ci seen i way. mu ko defee ko xamul nag dangay ngay defal ñoom ñoo koy or ka wayuñu wayuñu ko waaw. loolu moom doy na waar lool. Ah, duñ la bàyyi te laajuñu la ci koo xam ne sa xarit la. yàgg ngeen. mu Youssou Ndour gis na ni mu def bërki démb premier janvier bi Dakar na mu dikkaat. waaw xam nga Youssou moom eh, yàlla ko may. waaw te su yàlla nee waaw nga ne déedéet. déeta lay ba tax na du ma def loolu di ko ñaanal yàlla gën a wéral baatam gën ko fee saxal ah, gën koo may mbooloo mi yàlla moom lu mu def moom def na ko ba pare waaw kenn mënu ci dara. dëgg la waaw. barki démb gis nañ benn son bu doy waar bu mu génnee di ci rendre omage sunu papa Thione Seck ñu koy dollee ñaanal yàlla yërëm ko boobu yaakaar naa morsa ba sama xalaatu àdduna la jël. waaw xam nga eh, daf ma teewoo sax ñu waxtaan ndeysaan. waaw wax dëgg yàlla mu defal ma ci teraanga. ndeysaan ñu waxtaan ci lool. mu xamal ma ne daal euh, artistes yi fi ne bari nañu lool waaye yow da ngay sama doomu nday ñu yàgg. Mm-hmm. ma sentir morceau bi ngay sama doomu yaay. Mm-hmm. waaw te itam euh, bu dul loolu bu loolu wéyee. Mm. Euh, man. waxuma la morceau boobu ay yuusu deme nañ noo xam ne lu mu jël ci man war na waaw ah, lépp lu mu jël ci man rek sama xol def cooy sedd guy rawatina nag mu jël morceau sama morso sama xalaat àdduna Eh, def ko di jël way ca def ko hommage à Thione Seck mm. ma def lu dul rafetlu ko ba ma ko waxee laa ko wax mu ne ko lii daal dama cee kontaan mm. te lii dafa doon loo xam ne lu rëy rëy rëy la mm-hmm. waaw ñu su ko muy defal hommage Thione morso kan la ko jël way El Hadj Faye ah, loolu nag moom dafa dafa dafa rëy dafa dafa laaw loolu mm-hmm. loolu dara gën koo rëy vraiment rafet lool ma rafetlu ko lool nag mm-hmm. waaw seen diggante yéen ñaar ndax euh, xam naa ñu bari xamuñu ko. waaw mooy li la wax rek xam nga. waaw nii laa defoon Ndiokhouf Saganu la. mooy li ma la rek diggante bi moom. lii ma la ci wax rek defe naa ne. Ah, waaw bu nu ñëwee ci way léegi euh, ngay seetaan télé bi wala ngay dugg ci internet bi di gis euh, showbiz bi sa doom yi ci nekk jongante bi mu mel ni jongante lan ko def am diw jàppal diw. di nga dégg Waly di nga dégg Sidi dinga dégg Pape Diouf ak keneen ak keneen loolu en tant que nga jiitu leen ci euh, nekk seen pap boo amoon conseil boo leen di jox. conseil bi weesuwul lu dul mbir moom saaf la. waaw ku nekk li sa wërsëg da ngay a jël. Mhm. amoon jël sa wërsëg jël wërsëgu keneen. Mhm. waaw li war daal mooy rafetal rek. Mhm. ndax fi ne bu nu seetee ne seen mag ya ne woon nañ fekk seen bàyyi ak seen maam yi ba jóge fi te dañoo rafetal ba jóge fi. moo tax wooy wu rafet jar na jar nay suur ngir ëllëg boo fi jógee wala nga dem ba a ah, mënatoo waaw wooy wu daal comme niñ ko defee woon suñu génération ba nëgëni di daal. waaw waaw moo tax ah, suñu diggante da tax mën a dem leen tekk dikkalante. lu ci waaye soxlaa sa morom. Ah, wu. bu doon ñaaw na de dun egg si fii Youssou di la woo di reprendre sa sa morceau. mos a ñaaw. waaw waaw mos a ñaaw. waaw ndax ba ma ko waxee damaa cee kontaan bi daay walaay. te di ko ñaanal nag. Mm-hmm. yàlla gën a wéral baaxam bu baax a baax. Mm-hmm. yàlla defal ko ci lu kawe njortam. Mm-hmm. bi jaay Mouhamad barke Sëñ sa digganteeg sa doom Waly Seck. waaw Waly ndey. di doom ju baax a baax a baax a baax. ndax jamono yi sa gannaaw. daf maa woo téléphone. ndeysaan. Eh, na mu papa man day dama gis eh, image ci site ci internet daal waaye eh, sama yaram daw ma xool ko daal dama ko yéex a gis nag waaye ba ma ko gisee moom noo métti lool lool lool lool waaye nag Sénégal mhm. moo demee noonu duñ la rendre hommage ba génn àdduna. ndeysaan mu wax la loolu. billaahi wallaahi wa taala. ndeysaan waaw ñu di la soog a rendre hommage. waaye day papa ma ne ko naa ma xamal ne nag waali mi sa doom la. ndeysaan billaahi wallaahi wa taala. naam lu ma lay yóbbante. Mm-hmm. yëkkati yëkkati xaalis bare bare. dara nga ju bare bare yóbbante ma ko envoyé ma ko. Mm-hmm. Euh, euh, jox ko kii. Euh, yuusu yuusu jëng ndeysaan yuusu tamit di mbokk mm-hmm. yàqu ci dara waaw naka laam rek yuusu taxaw ci waaw mu envoyé ma ko waaw waaw def ci rafet rafet rafet waaw loolu doon lu rëy rëy mu xamal ma ne nag mm-hmm. papa mm-hmm. naa la rendre hommage oh. billahi wala waaw naa la rendre hommage ba xam ne eh, am nga am nga am nga doom ñu naan Waly Seck barke sëñ Tuubaa ah ma rafetlu ko lool sama xol bi seddu guy ni ko ma di ko ñaanal moom mu yàgg fu lool tànn ak wér yàlla doole xéwalam doole suturaam doole jàmmam eh, defal ko teraanga ju xéwal yu kawe ak njortam waaw waaw. su ngeen jaxasoo ngeen jaar foofu muy sa doom nga xam jikkoom xam ni mu mel. booy dégg yenn yi rumeur yi ci moom ci internet bi dina la mitti de. waaw xam nga euh, ku baax moom mënta ñàkk noonu. Mm-hmm. waaw di Sénégal. Mm-hmm. dañoo bari ñoo xam ne ku baax lañuy ñu bañ a gis. te nag Wally nag doon na koo xam ne ah day day day dox ci social. Mm-hmm. dama koy dégg di ko gis. muy dégg li muy def ci doomu aadama yi. waaw te nag gën lu gën a jege na gën a yey ndax day mbokk. waaw du jàmbur si man day mbokk. te nàmp li mu doon. xam li mu doon. di jëfe yi li mu doon. kon bu yàlla dogalee muy doxalee noonu war na. waaw li naan jëkk na jaadu naa ko gën. waaw waaye tax na ah, géwél yi fi mu ne dafa sigil géwél yi. waaw sigil na géwél yi lool. waaw. Euh, sa digganteek ak papaam relation yi ngeen amoon coon. waaw ah, papa moom yàgg na ñoom relation. Mhm. feebar naa fi maam problème mu bët yàgg nañu dama opéré euh, hôpital de Dantec. Mm. Euh, principal. ophtalmolo. Mm. maloji moom dong moo fa ñëw. seet si ma. ndeysaan keroog ay jooy la fa ligandoo. billaahi wallaahi wa waaw kon papaam yàgg nañu. Mm. yàgg nañu jëflante teranga. yàlla dogal nag. ndeysaan mu doon artiste bu mag. man manoon li muy def manoon li mu doon def lool waaw yàlla jële ko fi waaw senegal gépp jooy ko àdduna sëpp jooy ko waaw eh, kon eh, di ko jaale eh, doomam Waly di ko jaale Kiné Diouf soxnaam di ko jaale àdduna sëpp di ko ñaanal yàlla xaare ko aljana ci aljana yi firdawsi ak aljana yi gën a kawe te son moom wax dëgg yàlla seral na xol bu dee seen xol doomu aadama yi rek mooy yóbbu nit àjjana mu nga àjjana waaw. loolu moom rafet naa ci njort. am na lu mbégte ak kontaante moom bu toppee wax waxtaan bi li ni war a waxtaan bari na ñu bàyyi la nga tàggoo rek ak it nga wax nit ñi singal bi kañ lay génn. incha allah. Eh, bi clip yàggatul dara bu soobee yàlla. Ah. na génn. Mm-hmm. yàggatul dara. Mm-hmm. lii moom lancement rek pour gars yi xam ne. maa ngi ci mi ngi ci yoon wi daal. waaw waaw di gërëm ñëpp. di nuyu ñëpp di sant ñëpp. Mm-hmm. door ko ci yow ba ci. Mm-hmm. borom suite bi ak sa caméraman bi nga xam ne moom waa daal daaw da waaw jërëjëf. jërëjëf jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk internet yi nunu leen ko waxee rek grand Elhadj Faye ci moom la ñu ñëwoon hmm? yéen ñi commentaire nag du du sama papa sama doomi nijaay la moo tax mu naan ko grand ma waxaat ko <laughs> ndax commentaire yi tam ñu sànni la xeer naan kii mat na la bàyyi nga ko grand ah noonu lañ demee man ak moom day saan mu nekk mbokk loolu la yàlla dogal ci suñu diggante waaye métier mee ñu fi indi tey euh, fu fu lu mel nii am rek artiste bu mu mën a doon dinañ fa dem dëgtal leen ko waagaan ci caméra bi seen mbokk seen xarit mbay Diop ba léegi ñu xoolal leen keneen jërë ngeen jëf.